esplanade cœur de ville bu Kaolack dafa feesoon dell ay góor ak jigéen bàyyeekoo fu ne ñëw teewee cérémonie officielle sixième édition foire internationale bu Kaolack mobilisation bu kenn mësul gis président chambre de commerce bu Kaolack Serigne Mboup bi muy dugg si ñépp jóg accueillir ko ak accueil bu kawee lool foire internationale bu Kaolack di rendez-vous économique boo xam ne day gën a ñoŋal koom-koomu diwaan bi président chambre de commerce bu Kaolack Serigne Boub yéeneem ci diwaanu Kaolack mooy delloo ko place bi nga xam ne moom la amee woon ci wàllum koom-koom réew mi waaye gën koo suqali. Kaolack moo nekk plateforme tournante du Sénégal opérateur économique yëpp daje fi Serigne Sepp daje fi ñëpp daje fi Kaolack di dox. ba 1970 muy arrière di arrière arrière ba sës ci miir bi nag doy na nañ jóg ñu jóg ñu yëkkati Kaolack delloo ko fa mu nekkoon nit nag su defee dara ànd koog ñi mu ko war a defee day xam ne man na ah alxuraan daf ne yéen nit lu ngeen mën ngeen a découvrir àdduna inistatantum an tanfuzu min aqtaari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultaanin lu nekk ci àdduna yàlla may na doomu aadama mu mën koo découvrir mais xam-xam ak honneur am rek la koy découvrir kon tey jii ñun buñ fekkee fii cœur de ville kenn ñëmu fi woon a dugg tey mu nekk plateforme bu mag télévision nekk fi port bii min 2010 ñaari bato daawu fi ñëw tey 300 bato mi ngi fi ñëw waaye jigéen ñi ñëpp di liggéey ñëpp di dem Dubaay di dem fépp kon buñ nee Kaolack ci ñun ñi développement Sénégal mën na fi jógee xam nga ne ku ko weddi tamit da ngaa tëj sa bët te boo ko tëjul dañ lay wax rek la alxuraan waxoon summun bukmun umyun fahum laa yanqiluun mooy dañuy tëx gumba lu te alxuraan nee na gumba ak lu nee na fa innaha la taamal absar walakin taamal qulubu lati fi sudur yàlla nee bët gumba xol mooy gumba nit nag bu xol gumbaam du gis dara du gis lu baax lu nit nar def ci lu baax mu bëgg koo yàq waaye danañ ko jëfante ak yàlla ci loolu. ay kilifay diine politique aada ay kilifa yu yëngatu ci wàllum koom-koom ñoom ñëpp a teewee woon cérémonie d'ouverture bu foire internationale bu Kaolack bi mbooleem ñi fa jël kàddu rafetlu taxawaayub Serigne Mboup ci diwaanub Kaolack ak yéene gi nga xam ni am na ko ci diwaan bi. pour ñun secteur privé c'est un modèle boo xam ne dañ ko soxla modèle ba Serigne gis nañu li mu def ci dëkk bi il a battu bâti un grand champion national CCBM te développement ci dëkk loolu dong la liggéeyu génération yu bëri waaye génération bu nekk li nga jot danga koy yokk fructifier ko ba pare jox ko ñeneen yi moom la def te moo taxit modèle la pour ñun ñëpp te bu ñu amoon nit ñu mel ni ñoom ñu gën a bëri dëkk bi jëm ci kanam. la conseil départemental bi nga xam ne maa koy jiite daa si ànd ak moom guddi ak bëccëg te tey fierté la sag la si Kaolack ndax foo dem si Afrique nga dem ba Maroc nga dem ba Niger nga dem ba Gambie nga dem ba euh, RDC tey foire bi xam nañ ko kon nag loolu bu amee war nañ si turu population Kaolack yëpp. ñi gërëm bu baax sargal bu baax le président sëriñ Mboup si engagement am si taxawaayam pour que Kaolack nekk capitale économique maa ngi lay réaffirmer suma engagement suma soutien à cette foire internationale damay wax ne président Serigne li muy initié fii muy foire internationale du tey jii rek la yàgg initié ndax biñ ko joxee chambre de commerce ak léegi formé na 3604 ay jeunes yoo xam ne forme leen ñu ngi ci marché de l'emploi boo boolee li mu former yëpp mi ngi ci sept mille sept cent cinq jeunes kon kooku rek jàpp nañ ne moom mooy solution pour régler l'emploi des jeunes. jigéen ñi yaa ñu former yaa ñu yóbbu fi nga xamante ni xamuñu ko woon moo di Chine Turquie jëli yóbbu fu ne à travers le monde du ñu wone ba tey ñu doon ay entrepreneur ba fu nekk ñu di ñu ràññee ci àddina bi président Serigne. jërëjëf jigéen ñi nee nañ jërëjëf. dina aussi am joklante yu baax a baax ci diggante jënd ak jaay. loolu moo tax vraiment ñu rafetlu foire bi ñuy def ci biir région yi te Kaolack nekk ci vraiment leader au niveau régional te loolu lu ko indi mooy ki nga xam ne moom moo si nekk si njiit bi mooy président chambre de commerce bu Kaolack te pourquoi madame le ministre dafa ne bu ñëwee nañ ko sargal nañ ko sant nañ ko gërëm nañ ko féliciter te encourager ko encore si li mu nekk ndaxte li mu nekk li nekkawu ko rek ngir Kaolack mais mu ngi ko nekkee ngir Sénégal mais aussi sur le plan international cheikh al islam El Hadj Ibrahima moom lañ tànnoon mu nekk parrain sixième édition foire internationale bu Kaolack Serigne Mounamin Niass mi nga xam ne doomu Baye Niass la teewaloon fi mboolem njaboot gi rafetlu taxawaayu Serigne Mboup waaye noppi nañu ngir jàppale ko ci lépp loo xamante ni day suqali diwaanu Kaolack. Serigne Mboup nag dox ci traasu ay waajuram parce ku xam El Hadj Bara xam ne. ku taxaw am na ko ma ko laaj léegi ne ma taxawaay bi mu taxaw ci doomi daara ma ne ko déedéet taxawaay boobu ci baayam la ko donnoo ci kër baayam la ko donnoo loolu lool ci kër sëriñam la ko donnoo loolu loolu lañ xam alaaji baram bu ku ne xam na ko xam taxawaayam ci dëkk bi yëpp ak liggéey bu rëy bi nga xam ne liggéey na ko fi waaye ku ne xam na ne relation am ak mboolem nit ñu baax ñi waaye rawatina kër baay su bàyyi ootee an tool kenn du ko ëppale lu mu fay lu mu fay def kon sëriñ bu bu ñëwee dox ci terrasse boobu ñëw ci sëriñ maaxi xalifa wan ko ne ko sa doom laa sa sa lépp laa sa taalibe la sa sa sa liggéeykat laa mu adop mu acceptel ko ko mu di ko wane wane boo xam ne ñëpp gis nañ loolu nag li koy firndeel mooy école bii nga xam ne mooy école Baye Niass radiyallahu anhu Baye wax ne fala la jàngee keroog bi ñu yóbboo Serigne Boub ci école bi wan ko école bi dafa ñëw wane ne li may njëkk a def mooy tabaxal leen fi bâtiment boo xam ne 100 millions laa koy laa koy tabaxee te bâtiment bi ku romb ci école bi gis ne bâtiment bi taxaw na. pour bañ a guddal nag li ma koy tënkee mooy Serigne Boub fexe nga ba nekk te Kaolack fexe nga ba nekk fierté kër Serigne si yëpp ak doomi daara yëpp loolu nag. ñu ngi lay ñaanal yàlla la ko yàlla fay ba nga gis ko ba ñun ñëpp ñu gis ko kon nag ñun ñi ngi renouveler suñu engagement ci wane ne lépp lu sëriñ nekk ñoo nga ci ànd ak moom ci ñaan ci mobilisation ci xalaat. ci lépp loo xam ne mën nañ ko danañ ko ko defal. ci ndaje mi amaloon nañ fa jongante togg ay mbootaayu jigéen yu nekkee ci dëkk bi doon jongante ci ay plat yu wuute ci cappaandaw la GIE sopp Serigne fàllu moo jël raw gàddu gi. cérémonie officielle bi ñu tëjee ko ak dagg ruban bi ginnaaw bi kilifa yi amal nañ visite bu yaatu ci mboolem stand yi nga xam ne ñoo nekkee ci parc des expositions bu kër de ville bu Kaolack sixième édition foire internationale bu Kaolack day wéy ba le 14 novembre 2021 lu ëpp juróom-ñetti téeméeri exposant nekk fi di enregistré at mu nekk lu ëpp ñetti téeméeri junni visiteur